jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi nag euh, ñu daal di euh, dellu siwaat ci seen émission pencum réew mi seen émission pencum réew mi nag ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu invité Omar jum Omar Dioum nag moom mooy secrétaire national chargé de la formation du PRP. PRP nag muy parti boobu nga xamante ni yàggul te Déthié Fall euh, nekk ci bopp bi euh, moom Omar jum euh, mi ñu invité tey tamit expert la en communication nekk directeur de production du groupe Oriental Sénégal nekk coordonnateur départemental du PRP fi nga xam ne moom mooy ci mooy ci Linguère moom la ñu invité tey fas yéene waxtaane li nga xam ne mooy élection locale yi ndax xam ngeen ne PRP ci coalition yeewi la bokk te coalition Yewwi dégg ngeen pëccëxoo bi nga xamante ni moom lañ fay tudd loolu lépp danañu ko daal di waxtaane waaye danañu waxtaane tamit fi nga xamante ni mooy euh, Linguère googu nga xamante ni fa la nekk euh, te nag Linguère ku ko tudd sa xel dina dem ci ay ministres yu mag a mag ko ci mel ni ancien ministre de l'intérieur Aly Ngouille ma ngi foofu sàmm Ndiobène Ka ak Ali Sala Diop ak ñeneen ak ñeneen euh, loolu lépp danañu ko waxtaane Omar Dioum ñoo ngi lay nuyu waaw maa ngi lay nuyu Abdou nuyu auditeur rajo mi FM di la remercier ci invitation bi. Euh, Omar yow nga bokk ci PRP PRP bokk ci coalition euh, Yewwi Askan Wi euh, coalition Yewwi Askan Wi ak élection locale yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal gis nañu ne seen coalition boobu am na ci ay gox yoo xam ne am na ay yëngu-yëngu nan ngeen dundee loolu. waaw euh, comme ni nga ko waxee xam nga yëngu-yëngu moom bul ne ci coalition Yewwi Askan Wi même au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar yëngu-yëngu. amaan na sax mais Yewwi lañ fi invité. non d'accord naa boo ne Yewwi am na yëngu-yëngu. donc non mais bu fi ma ne leen waa Benno. waaw d'accord naa. waaw xam nga da nga posé question. <laughs> <laughs> que boo expliquer da ngay da ngay da ngay il faut faire la comparaison boo ne Yewwi Askan Wi gis nañ ne am na pëcc pëccëxoo day mel ni que on sous-entend que pëccëxoo gi ci Yewwi rek la ne en plus li nga naan pëccëxoo bëgg naa nga ne ma diwaan bi wala tel candidat à la dafay pëcc xo keneen su ko defee ma la tontu mais boo ne dégg naa wala dafa mel ni man duma ma fonctionné ci loolu da nga naa ma lii ma jël leneen teg sax su ma fay teggi daal waaw expliqué loo ma comprendre waaw tey par exemple tey euh, soo xoolee fi nga xam ne mooy cees euh, ñoo nga fay dégg euh, Moussa Tine ñoo ngi fay dégg docteur Babacar Diop fi nga xam ne mooy Saint-Louis ñoo ngi fay dégg Abba ñoo ngi fay dégg Cheikh Bamba dakaar ñoo ngi fiy dégg Soham nii ñoo ngi fi dégg Barthélémy Dias boo demoon mbuur tey ñoom maître Tall ñoom docteur Mamadou Lamine euh, Diaité ak feneen ak feneen limal naa la ay gox. d'accord xam nga loolu li nga ma limal lenn rek laa ci mën a jàngatee mooy coalition Yewwi Askan Wi ay leader ñoo fa nekk puisque ay ponkal nga ma tuddal xam nga bu doon da nga ne Euh, monsieur Massamba mooy xëccoog monsieur Mademba alors que ñoom ñaar kenn xamu leen loolu mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko analyser mais li nga lim ku ci nekk si ñun cela montre que ku si nekk si ñoom mën na jiite. ay ay ay ay waaw d' accord waaw waaw posé nga ma question damay bàyyi ma tontu xam nga d' accord ak man cela veut dire ay ay ténor lañ que ça soit muy euh, au niveau de Mbour Saint-Louis ainsi partout au Sénégal cela veut coalition Yewwi Askan ay ponkol ñoo ko jiite c' est te ay borom xam-xam nag buñ bu buñ jiitoo c'est comme en science kii day indi lii kii indi lee ñu aw chemin différent mais ñoom ñu koy amandoo même résultat te donc loolu li mu ci bëgg a déduire mooy allah kulli aal on aura un seul candidat mais tey bu kenn rek jógoon na man la de mel ni kenn kooku rek fa ab xam-xam mais ay borom xam-xam bu dajee ñu tànn ci kenn loolu doon problème on finira juste on finira toujours euh, pour pour am benn candidat. waaw mais xam nga tey bu dee tey par exemple tey ci diwaanu euh, Saint-Louis. Mm-hmm. Euh, ñi ànd ak Cheikh Bamba Dièye dañoo contesté li nga xamante ni tey euh, moom la commission départementale ba wax. Mm-hmm. non xam nga non bu ne da nga con dañoo contesté côté Cheikh Bamba Dièye da ko da nga déglu ñaari version kii def ne dañoo dem par vote ñeene respecté wuñ euh, consigne xaw ma ainsi mais du de contesté. il faut il faut juste ñu wax les choses telles qu'elles sont contesté parce que mënoo bokk ci benn kuréel kuréel ga tànn kenn nga ne doo ko tànn dan ne ci coalition bi bu ñu ba amuñu consensus dañuy yëgal dossier yi au niveau de la conférence des maintenant il revient à ces leaders là de choisir ou bien de proposer un candidat de toute façon bokkut ak ñi nga xam parce que ñoom ñu fa la dëkk xam li doon grave mooy comme ce qui se passe laa ko tuddee foofu. xam nga tax ma yaa ko tuddee contesté waaw d' accord léegi dama a justifier ma ko mhm. tey par exemple tey ñoom euh, am na lu ma gis ci seen euh, procès verbaux yi ñu defar. Mhm. ñi nga xam ne ñooy nekk parti yi bokk ci Yewwi Askan Wi au niveau départemental. Mhm. dañu voté Abba Mbaye. Euh, Cheikh Bamba Dièye Euh, voté luñu ko ndax ñoom ci seen biir ñoo def seen seen seen seen attends attends dama lay dagg c'est-à-dire boo bokk ci Yewwi Askan Wi au niveau départemental dañoo voté dañoo bokk dañoo voté Abba Mbaye donc on sous-entend que ñëpp à l'unanimité man te loo mënta nekk soit da nga naan la plupart ou la majeure partie ñee jox jox bopp mais boo ne à l'unanimité wala ñëpp loolu day doy waar nga xam ne li peut-être journaliste nga seen ça se comprend il faut que nga indi jéem a jeexe jàqa sama bopp mais mënta ne man saa à sama ligne sama ligne da nga posé question dañuy dem molo molo benn par benn. dañ jël kaaw Saint-Louis. nga ne ma pëccëxoo dafa am ay ñaari kuy ñoo fa nekk ku ne bëgg ngaa wane sa bopp cela veut dire que ñoom ñaar ñëpp am nañ yéene pour développer Saint-Louis. comprendre nga maintenant bu demee ba jubóowuñu consensus amul loolu ci règle du jeu la ci la bokk. consensus bu amee parce que c'est normal parce que ñëpp bokkuñu parti politique. d'accord léegi waaw. ñëpp bokkuñu parti politique. Mhm. mooy waral mu nekk coalition bu fekkante ne ñun ñëpp ñoo bokk gis-gis coalition da am benn parti rek am Sénégal gi bokk ci. mais parce que ñi ànd nañu ak Cheikh ñi ànd nañu Abba ñi ànd ak Abba dañuy jàppale Abba ñi ànd ak Cheikh Bamba jàppale Cheikh Bamba bu ñu trouvé dañuy jël affaire yóbbu ko au niveau national ñu proposer benn candidat su ko defee les autres seront obligés de respecter les les les comment dirais les consignes. ñi nga xam ne moom la ñu joxe. Euh, seen commission départementale yi euh, lan mooy règle yi. donc commission départementale ñi nga xam ne dañoo envoyé circulaire dañ ne coalition Yewwi Askan Wi ubbil na buntam même ñi nga xam ne sa bokkun ci conférence des leaders par exemple damay jël kaawu département de Linguère ba nga xam ne fa laa bokk ki nga xam ne moom moo jiite coalition ci la conférence des leaders comprendre nga cest à que loolu tamit dafay wane am na ouverture au sein de la coalition. Mhm. ñun li ñuy wax mooy tout sauf bennoo. képp ki nga xam ne nag bëgg nga jëmal dëkk bi kanam alors que tamit euh, yàgg nañu gis ne yow yaa ngi posé acte yi nga xam ne c'est c'est juste pour mettre en avant l'intérêt de la population ñun amuñu problème. amuñu problème bi on n'a pas ce problème à ce niveau. ñun loolu mën naa ne bokk na ci cri parce que critères dafa bëri mais loolu bokk na ci bis leen gis nga xam ne mën na jëmal gox ba kanam te bokk sax si la conférence des leaders alors que bokkul coalition benn bokk yaakaar intégré leen ko bu fekkee ne bëgg na bokk. Hmm. c'est ce qu'on a fait au niveau. Euh, euh, euh, bi ngeen taxawal est-ce que si gox goxaan yi au niveau communal départemental ndax nekk na loo xamante ne lu yomb la. Hmm, pour taxawal coalition Yewwi Askan Wi. au niveau maanaam de commission départementale yi ndax ndax liggéey bi nekk na lu yomb. ba consensus man see am. non consensus moom xam nga est-ce qu'est-ce qu'on appelle consensus d'abord. xam nga euh, gars yi dana consensus xaw ma nu ñu koy man. consensus naa la expliquer. waaw explique ci wolof ma comprendre. consensus man ma ko mën a expliquer en français. je sais ce que signifie consensus. mais bu dee ci wolof euh, waxtaan ba juboo ba déggoo. en fait waaw mooy consensus. mooy consensus man tam waxtaan ba juboo nag dafay dafay raar. yónnante yàlla Mohamed est que ñëpp d'accord na c'est le c'est yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk am na ñi nga xam ne d'accord ne yàlla am na kon li yàlla amul yónnante ko ñun nit consensus comme bu ñu koy waxee xel tamit jaruñu li may xalaat ñun ñëpp bu ñu toogee nga teg acte ñu ne 1 plus 1 égale 2 kii bu ñu ne 1 plus 1 égale 3 ñu ne ko foo teg 3 bi bu yàggee ñëpp dana xam ne 1 plus 1 égale 2. moo waral consensus dana am bu fekkente ne jiital nañ suñu xel mais bu dee ay dof ñoo daje nag comme ñi ñeneen ñi ñu koy defee consensus du ma sa am parce que day xëcc jëm gauche kii xëcc jëm droite xoolul intérêt dëkk mais bu fekkente ne intérêt dëkk ba la tax a jóg consensus du jafe. mais est-ce que tey euh, Omar euh, Dioum yow jàpp nga ne. du am benn leader boo xam ne dana frustré ba génn coalition yeewee askan mi man jàpp moo ko xam pour lan parce que and nawle la. ànd nawle ko ànd nawle mais ànd bi nga xam ne ku nekk da ngay jàpp ne sa mor yow gënoo sa morom tey damay jël la camp du président Déthié nga xam ne ñëpp xam nañu ko tey bu fekkee da ngay frustré sa intérêt bopp tax ngay frustré bu fekkee dina dëgg la ngeen waxoon au début carte gi changé wul. munoo mun ma jàpp frustration am na ñi nga xam ne dañuy frustré que xaj na am na lu ñu bëggum pour bëgg a am tour wala bëgg am buzz joxul la ko nga génn pour te victimiser loolu c'est des choses qui arrivent quoi en fait que ça soit dans dans dans le cas de la coalition Benno Bokk Yaakaar que ça soit dans le camp des des des, coalition man loolu a jàpp mais frustré moom bu dee yéen la ngeen waxoon ngeen ñëpp ngeen dànk au début te mi ngi continuer frustration warut a mën a am. d'accord léegi euh, sa waajooju sax moom la ñëw Déthié Fall. Déthié Fall attends loo koy tuut lan sa waa ji maa ngi koy retiré. voilà d' accord léegi euh, Déthié Fall. Mhm. Euh, Déthié Fall noonu ñëpp xam na ne borom xam-xam na ñëpp xam nañ ne aussi cadre la euh, ku nit ñi respecté la aussi. c' est un homme intègre. exactement léegi Déthié moom ban commune la bëgg wala ban département la bëgg. <laughs> loolu est-ce que est-ce que du Déthié nga koy laaj. non non yow laa koy laaj. yow non xam nga man dama ñëw ñuy wax ci. côté gox-goxaan yeeg des choses comme ça. mais li ma la laaj gox-goxaan la. d'accord mais man mag mag dëcc bokkuñu gox-goxaan man danga may laaj tey boo ne moom loo bëgg. man man naa la ko wax mais la dëcc bëgg moom dama la jox numéro téléphone nga woo ko rek nga laaj ko. non non mais yow yaa yor yaa chargé lépp lu jëm ci wàllum formation parti politique boobu. effectivement euh, au niveau national. Mhm. mais yow. Ah. Euh, euh, xam nga tey par exemple mën naa laa dégg yaa ngi xëccoo Linguère. man man ngaa nekk yow di xëccoo Linguère. waaw commune u Daara. Mhm. même bien vrai que néew nga fa doole. te xam naa dana si ñëw. non man loolu laa jàpp. Ah, waaw néew dinañ fi dina si ñëw. Ah, léegi lan nga jàppee néew doole aussi. non dinaa la expliquer lan moo tax ma ne da nga faa néew doole. Mhm. léegi euh, Déthié Fall moom. Euh, comme moo ngi ci biir coalition Yewwi Askan yi léegi euh, fan ak fan nga dégg au moins ñu proposé ko wala fu mu bëgg. xam nga xam nga tey am na ñi nga xam ne question yi nga xam ne man li may wax même su fekkente ne xam na am na ñi nga xam ne ku nekk da am loolu la jox tey par exemple le le chargé de com du parti bu ñëwoon mi nga xam ne moo yore communication boo waxee c'est une voix autorisée boo waxee man nga dem mais dama ne la kaaw Déthié Fall que ça sa bëgg na Saint-Louis ou bëggul Saint-Louis bon boobu du ci aborde pour le moment duma ci aborder. waaw léegi yow fan ngay militer. yow ah, Omar ah, Dioum Daara Jolof fan lay militer. Déthié Saint-Louis. Euh, ndax yow bëgg nga commune bu Daara Jolof. man non bokkul samay objectif actuellement. léegi Déthié ndax réclamé na ne dafa bëgg Saint-Louis ci seen réunion yi. yow xanaa da vous m'avez reposé la question moom laal tontu sànq. Hmm. <laughs> wala vous avez reformulé votre question. wala dafa amul base. Saint-Louis non bu leen base xam nga attends attends attends Sadika Sadika xam nga tey boo fi ñëw ne Déthié am na base amul base loolu man dama jàpp ne sax tuutal Déthié la. non Saint-Louis laa la non non non attends mais Déthié si si si honorable député la nu mu dafa nekk député. si oh, parti politique bu mag la nekkoon. mais nan la def ba nekk député laa wax. ci parti la nekkoon. léegi créé na mhm. parti. bi moom moo nekkoon le numéro 2. Mhm. moom bu beroo nga yaakaar ne 85 pour cent voire même 90 pour cent de ces gens de ces gens là ko suivre. Mhm. logique la wala lu dul logique. dëgg na non mën naa am non mën naa am damay tontu sa question bi. non Déthié mën naa am ay militants partout au Sénégal. am na ko sax dama du PRP. Actuellement, il est le président d'un parti politique légalement constitué et un parti qui est, repré... qui est bien représenté dans les 46 départements du Sénégal tey boo ñëw ne Déthié est-ce que am na base politique Saint-Louis loolu c'est juste insulter notre intelligence entre guillemets noonu laa ko mën a jàppee mais mel nga ne président Macky Sall est que euh, am na am na base politique Fatick parce que bay say weewu tànk waaw non xam lu tax ma laaj la loolu. Déthié Fall ci wàllum politique fi nga xam ne mooy Saint-Louis ci sama lecture par exemple muy Mansour Faye di Cheikh Bamba Dièye di si mel ni ko Ahmed Fall Braya. léegi dama lay jox beneen ma lay tontu parce que dimension yi ñoo bokkul ñi ngay lim quand on parle de Mansour Faye ministre la nekk maire kooku bu fesul ndar ñu wax ko ndar la fes amul feneen fu mu fes Ahmed Fall Braya bi ngay wax ndar rek lañ ko xamee xamuñ ko feneen ainsi de suite mais Déthié Fall bul comparer Déthié ak pomme de terre ma gën a paraas ni ñu waxee kuñ ci ca avocat baaxul bul tëkkale Déthié ak benn maire bi nga xam ne munu à Saint-Louis te Saint-Louis sax bul fàtte ne sur quelle base quel critère lañ ko élire en 2014 conseillers ñoo fal est-ce que la population de Saint-Louis avait porté leur choix sur le candidat de de de de Mansour mais bii nag élection yi la xamee kan la dëkk ba fal ak kan la dëkk ba falut kon tey boo na ma euh, Mansour Faye la part des choses. d'accord mais léegi euh, Omar Euh, à la candidature la si si si si Saint-Louis comme ni ko comme ni ko Cheikh Bamba Dièye ak Abba Mbaye def xam nga xam nga tey ñetti question yi nga ma posé même réponse la mooy li ma la wax sànq lu tax nekkul candidat à la candidature cela veut dire que autrement dit pourquoi Déthié demul nekk maire Saint-Louis autrement dit moom nga ma posé est-ce que candidat la pour maire Saint-Louis c'est la même question qui revient. jàllaatal ci beneen. <laughs> jërëjëf euh, Omar waa léegi ñu ñëw ci euh, Yewwi Yewwi Askan Wi léegi yéen seen coalition boobu noonu. est-ce que tey jàpp ngeen ne coalition la boo xam ne mën ngeen a jàkkaarloo ak Benno Bokk Yaakaar ci ci ci ci ci surtout si yeneen grand villes yi bu bu dee euh, waaw euh, lan moo ko expliquer. est-ce que mën na jàkkaarloo. nga wax de est-ce que est-ce que. waaw da ngay da laaj. damay laaj waaw. mën na ko. waxuma mën na jàkkaarloo da koy gagné. waaw da koy gagné. fan nga ko teg. voilà tey damay jël par exemple la commune de Daara Jolof. qui est la plus grande commune du Sénégal avec une population de 40 000 habitants qui a deuxième marché économique du Sénégal derrière Diaobé nga jël département de Linguère pëcc xoo am na fa déjà ñoom parce que man mënuma jàpp benn coalition bu sérieuse ñu ne dañoo war a am benn candidat nga gis 15 candidats taxaw ku nekk na damaa bëgg te kenn mu topp sa gannaaw. Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar. loolu rek argument la. ci commune bu fan. Daara Jolof même du commune sax même léegi nag loolu rek argument la. pour wane na ñoom munuñoo gagné xam pour lan parce que ku nekk yaa ngi jàpp ne man dama war a jiite pour faire plaisir au président wala dama war a jiite pour ëllëg ñoom gëmu ne sax Macky Sall dana gañ pour ëllëg Macky Sall bu fi jógee keneen ku ñëw. mais président teg na kam fay teg ba pare. mooy li ma la wax nag xam nga du en plus loolu tamit erreur la ñun du président moo ñu war a tegal candidat. mais moo yor parti tamit il faut mu am organisation. attends attends son parti n'est pas organisé. tey département de Linguère mënoo wax ne kii mooy leader département ba xanaa peut-être à Linguère bi nga xam ne ñëpp d'accord na ne moom moo fa am doole bi mais amul ku taxaw mu ne parce que sabar sabar ko tas rek fu ne lay waay du jege. ah da nga lan moo tax yéen génne. da mooy li ma la wax li tax ma ne dañuy gagné mooy li ma la wax déjà kan fa teg. Ah. dëkkul ca dëkk bu benn. kan si Samba dëkkul Daara. mu dëkk bu lal papaam nekk président conseil rural euh, euh, bu Bolal nekk PDS 2012 la daan jógee di jël Jakarta di ñëw benn bi ci topp mooy li ñuy xeex depuis des années mooy daara na am benn maire bi nga xam ne daara la dëkk sa baay ngi fii fi la juddoo fi la magee sa waajuru góor sax laay wax wala sa waajuru jigéen wala yow fii nga dëkk mais dëkkoo fa ba pare ñu imposé ñu ko te yow kañ nga imposé am na ñi nga xam ne ña nga ci biir dëkk ba sax d'accord ne moom war na mën a nekk maire en plus pour la ñu war ko teg maire depuis quand il est ministre nekk na directeur de l'équipement rural directeur général SAED ministre de l'élevage ministre de de du développement communautaire et de l'équité sociale ñu naxee ñun pose première ñu teg ko fa naxee ñu ko ne au moins dana leen tabax. benn kon yéen da ngeen a jàpp ne Yewwi da ngeen di gañ a daara. moom la dañ koy gañe. kan moo fa nekkal Yewwi. on a porté notre choix sur euh, Idrissa Samb qui est inspecteur des impôts et domaines. Hmm. jàpp ngeen ne mën naa gañe Samba Ndiobène du jàpp de da koy gañe parce que dëkku fa sa à dire que xam nga ñun du suñu du suñu man Samba c'est un man li may wax man Samba c'est un mais dëkkul daara. ku dëkkul daal mais mais mais mais mais ñu dëkkul ci gox di fa di fa joŋante bëri na Sénégal. non mais daar moom la fay xaw xewul feneen parce que daar moom yaay jóg nekk foofu doxandam ñëw ñu xajal la ba nga dugg léegi nga bëgg a jël nga bëgg a jël baatu askan bi te encore li tax ma ne man fi ma teg argument na duñ gagné. dafa allié wu ak benn président mouvement bi nga xam ne en 2014 il avait voté contre Benno Bokk Yaakaar. 2014 mën naa ne c'est à cause de lui que Benno Bokk Yaakaar avait perdu les élections ci commune Mbalaxe mu dem soutenir Aliou jax bàyyi Benno Bokk Yaakaar tey kooku nag nga ko mën a wóolu ñëw di allié ak moom te ñoom ñaar kenn dëkk fa nag. d'accord mais léegi euh, li nga ma wax nii dafa xaw a yomb tuuti ci man ka ka coalition Yewwi mhm. askan wi ak ni Sénégal toll yëpp nga jox ma benn exemple ci ci ci Daara Jolof. xam nga tey man su may wax j'ai l'habitude de man je tiens toujours le même discours xam nga fan laay xeexal ma Daara Jolof man xaw ma la xaw gin gi neew mbir ki laan tey même si tout le monde faisait comme moi ba si parti politique ku nekk boo defaroon sa dëkk. Sénégal du am problème man Daara Jolof laay waxal. waa non Daara ngay waxal mais danga ne yeewi askan wi dafay gagné euh, benn Bokk Yaakaar tey par exemple tey fu si mel ni ville de Dakar. Mhm. ndax xalaat ngeen ko gagné. déjà ñoo am nañ problème sax pour am candidat. kan ñan si. Euh, coalition Benno Bokk Yaakaar. yi ak yéen. ñun waaw non c'est-à-dire que moom on on a jusqu'au trois affaire yi affaire yi kii. ñoom ñoom problème la ñu. xam li problème. xam nga ah. xam nga li problème ah. déjà li tax mën a Dakar. Dakar tey yaa ngi xalaat ñu naan Abdoulaye Diouf Sarr ñu naan Ba non Abdoulaye Diouf Sarr lañ jiital. non c' est pas encore officiel xam si officieusement. waaw officieusement moom lañ jiital mais liste yi xool ce qui se passe à Tamba dem ba ci biir génne dugalaat c' est pas rien n'est encore officiel. waaw non xam nga tey par exemple tey Abdoulaye Diouf Sarr moom ci boppam. Uh-huh. def na déclaration ne tànn nañu ma ba pare def déclaration. loolu lañ mën diw. ñu jékki-jékki laa après ñu génne waa dugalaat nan bàyyi ba la trois su boobaa nag ñun xam na xam na naka la ñuy doxalee. mais ñoom xam na ne sax duñ gagné Dakar ñoom xam nañ ko sax parce que bii pas askan bi xam nga bu njëkk man nga toog yow benn Abdou Khadre toog yor sa malet ba ba élection yi jot ñu nga dugg ci gis conseil 5 millions 5 millions 5 millions dem élection yi carte gi changé population bi ñoo lay fal yow conseil man fal ma mais bii pas nag population bay fal nan bàyyi ba ku population bi fal ñu xam ne yaa fi ne. Euh, dafa mel ni dafa am benn benn journal bu ko bind tey mu ne yéen euh, opposition bi maanaam. Euh, ñaari waaw ñaari opposition léegi expliqué am ñaari opposition yi. wàllu askan bi ak euh, yeewi askan bi. mais yéen ñaar ñëpp ay opposé yéen ñëpp. non mais boo ne yéen da nga wax yéen pluriel wala yéen ñun. vous coalition yeewi askan wala vous opposition en grand avec un grand O bar nga ciy wax. léegi yéen opposition bu Sénégal bi yépp laay wax. déglu ma man danga may laaj ci coalition yeewi laa bokk la fa xew ci beneen coalition xaw ma ko wax dëgg yàlla danga may laaj lu ma bokk. mais yow nag Omar yaa ngi may waaj jaaxal. yow sànq. yaa fi taxaw. Eh, nga ne coalition bi nga bokk laa lay laaj. si ngay si ngay wax. te sànq yaa ngi wax ci coalition benn bokk yaakaar. naan non xaaral rek ñaar la cest xam nga euh, débat d'idée la. man bu may wax soit damay def comparaison entre coalition Yewwi Askan ak benn bokk yaakaar. opposition bi nga wax man dama la si opposition bi laaj ma ñun. loolu laa la wax. man kay li waxuma leneen. waaw léegi. waaw léegi opposition bi ci boppam. coalition Yewwi Askan bi. non man opposition bi lépp laa la laaj. bu la neexee nag bu ma paree. bu ma loo xam ne loo xam ne lu ma mënta tontu. dama ma ko tontu d'accord ndax yow yow euh, bu ma la déggee mooy dafa am benn euh, dualité boo bëgg boo bëgg def yow boo bëgg si nga bëgg wax da jàpp ne yéen élection locale yi dualité bi am mooy benn bokk yaakaar yeewi askan wi. waaw moo fa am di. ah moo fa am di. ok li may waxatee ngi nii xam nga yow da nga yaa ngi minimiser yeneen coalition yi léegi. <laughs> léegi opposition bi taxawal taxawal déedéet. waaw xam nga wax dañ koy déglu minimiser wu ma kenn mais dama jàpp ne boo xoolee parti ak mouvement yi bokk ci coalition bi askan wi am na wallu wàllu Sénégal bi nga xam ne notre frère Abdou Thiam ma nga fa kii kii fait partie euh, du parti PDS moo na sa départemental mais moom kese moo fa nekk contrairement ak boo koy comparé ak euh, coalition Yewwi Askan Wi bokkul yaa même pas photo d'accord yaa même pas photo moo tax moo tax man su may wax duel bi du du question minimisée mais duel bi entre Benno Bokk Yaakaar la ak Yewwi Askan Wi loolu mooy duel bi léegi euh, xàjjalikoo bi am ci diggante opposition bi coalition yi ndax loolu euh, lu baax la ci ci ci ci ci yéen. xàjjalikoo moom baaxul ci fenn xàjjalikoo moom baaxul fen ndax tey euh, boo xoolee opposition bi bu àndoon am un seul et unique candidat Macky sax deuxième tour. mais aussi sànq wax naa la ko nee naa la ñëpp mun ñoo bokk ndoo ànd parce que buñ bokkoon idéologie. et euh, bokk bokk ni ñuy xalaatee ñëppay bokk ndoo benn parti ni kii dafa créé parti bi kii créé parti bi kii créé parti parce que bokkuñu gis-gis est-ce que vous comprenez moo tax ma ne la nag c'est-à-dire que xaajaloo mënut a ñàkk ñu ngi ci benn bokk yaakaar frustré am na fa parce que mbooloo moo demee noonu mbooloo boo gis xam nga frustration bennoo rek ngay wax te yéen da ngeen am mais doo xam nga attends frustration nee naa mënut a ñàkk mais bu bennoo moom dafa dafa flagrant parce que Macky Sall dafa teg xel gars yi ñoom ñëpp nag. lu mu leen tegee xel ah Ablaye ngi nii nee na Macky maa ak ñeneen nag ñeneen ñu nga xam ne Macky day toog na la yow laay def candidat ba nga dundee yaakaar à la fin mu changé carte gi te problème bi mooy doo am temps pour répliquer wu ñaata fan moo leen dese pour nga pour nga def sa liste de suite moom c'est-à-dire que. ñu ni gis nañ tamit ne dafa mel ni waa parti socialiste Macky Sall dafa jël seen mairie yi ngar daa jël yëpp jox ko waa APR. déedéet yow xam nga man damay faral di wax ne Macky Sall dafa cest que dafa dafa dafa jàngat ci passé. xam nga c'est un pur produit du PDS fa la juddoo fa la occupé occupé fa euh, pratiquement poste yëpp loolu ñoom waroon nañ ko sa xalaat. merci mooy allié yi waroon nañ sa xalaat ni muy doxalee xam nga li naan cin bu nar a neex bu baxee dafay xeeñ actuellement daf leen won ne yéen amu leen loo leen représente parce que jël na leen ba seeyal leen tey parti socialiste dafa mën a critiquer benn bokk yaakaar mënu ko ils sont comptables. Mm-hmm. te tey seen génn gi loolu mooy mooy rey na leen dugg nañ ci kàmb gi dalee leen après élection locale ma koy def remaniement ñoom lan amoon dutuñ ko amaat soit muun mbaa mott la Idriss Seck doon bañ ba pare dafaat ko da ngay ne muut ñu doxal mi kii n'existe que de nom maintenant ñooñu pare nañ même Macky Sall bu leen joxul seen wàllu ci nag yi sax amutuñ critique ko parce que ñoom ñoo dugg ci biir. d'accord ku mel ni Déthié tey bay Déthié bay bay dem dafa jël responsabilité ne c'est un homme constant il est tey ku mel ni Idrissa Seck mënut a génn ngàññ Macky mais Déthié logique bi mu jël ligne éditoriale bi mu jëloon tey bu demoon ci benn bokk yaakaar fan lay boo demee assemblée lu muy wax mais nit ki da ngay am xalaat am am xel di xalaat li ci li sa kanam mais bu doon nguur rek ak xaalis ni ko proposé bu neexoon dem am comme gars yi nekk sax sukkar vanit d'accord léegi yéen euh, coalition Yewwi euh, Yewwi Askan Wi euh, mën nañu wax ne yéen ñoo ngi si dernier réglage yi. dernier ligne droite. fan ngeen jàpp ne fi ngeen fi ngeen fi ndax nii nag. heure bi affaire yi explosé heure boobu lañu toll xam naa ne fii ak lundi moom fi la explosion yi di commencé lundi mardi pour liste yi cest à xam nga man bokkuma ci ci nu ñu koy waxee sax xam nga parti bu nekk da nga da nga da nga jël kenn wala ñaar mu dem ci kaw ñu représenté leen ñun boo ñëwee ci PRP docteur Mbodj moo fa dem ak am na keneen je ñoo fa dem peut-être ne ña fay fay xew ñun dañuy pare rendre ñu compte man aw ma même loolu noonu mais li ma la mënti wax daal taj. nga yéen ñi dem ci plateau yi dañ leen di war di expliquer aussi. non xam naa dañuy expliquer mais xam nga tamit nee naa la yaa di ces choses yi nga xam ne duma ko mën a dévoiler fii. tout à mais am na li nga xam ne nag on on dévoile pas ces stratégies ci ci ci en politique loolu xanaa lu gàtt gàtt xam wala lu nekk nekk ndaw xam na loolu c'est-à-dire que bëgg dugal fa ma bëgg xëcc du ma fa ñëw. d'accord voilà léegi yéen euh, ci dakaar gis nañ ne euh, ville de Dakar dafa intéressé coalition yépp yéen euh, ville de Dakar ndax tey ñoo ngi wax euh, non capital bi aussi moo demee noonu ndax Sénégal mënoo koo tudd tudd capital ma ngi mel comme yeneen réew yi léegi euh, yéen seen coalition bi ñoo ngi dégg Barth fii Soham Wardini fii ñu mu mel ni réeroo dafa am ñoom ñaar ci seen diggante yow lan moo ci sa xalaat xam nga wax naa la sànq nee naa la day ça montre encore une fois que coalition Yewwi Askan Wi ay tête ñoo ci nekk loolu benn beneen bi ci topp mooy loolu parti mouvement Khalifa Sall la concerné a lijjanti xam nga loolu seen biir la xam nga man ba nga may laaj da nga may laaj lu bokk ci PRP ma wax la mais man xaw ma seen parti ni mu structuré wu nu ñu koy liggéeyantee mais li ma ci mënti wax daal ça prouve encore une fois que coalition yooyu askan wi ay bopp ñoo ci nekk Barthélémy am na droit laaj mairie Dakar Soham Wardini maire sortante la am na droit laaj ko mais nag ak lu ñu ci mënti demee ñoom ñoo war waxtaan seen biir ñu am kenn. waaw mais xam nga tey ñoom ñooy potentiel candidat di tudd. ci ci ville de Dakar ñoom ñaar ci biir waxuma la biir taxaw euh, taxaw Sénégal mais biir yeewi euh, yeewi askan wi mhm. euh, dégg naa ci tamit ay médiation amoon na ci. Mhm. est-ce que yow consensus wala déggoo jàpp nga ne dina mujjee am. non dina am xam la parce que fi nu commencé pour taxawal yeewi askan wi dun gars yi dun daf benn jéego bi nga xam ne dañ koy yàq te Barthélemy c'est quelqu'un bi nga xam ne c'est un homme de principe. loolu ak loo ko mënti waxal da koy d'accordal bu ne la da lay rey suba ba yow nga fay say hmm. lu mu wax da koy def ak en plus combat yi mu fii dugg ci kaso di défendre Khalifa di di lu nguuram Macky Sall teg mu teg ko. Soham Wardini aussi peut-être bokkut euh, stratégie am bokkut ak stratégie Barthélémy ku nekk ak sa tempérament. moom tamit nekk na maire euh, dem na bi muy rencontré Macky lan la wax damay dem seeti Macky pour mu génnee xalifa xam bu ko neexoon du ko wax damay dem rencontré Macky pour mu génnee Khalifa. ku nekk ak sa stratégie mais au finish ils vont trouver un terrain d'entente parce que ñoo bokk ci benn coalition bi nekk. mais mais moralement est-ce que jàppoon ne Barth coalition Yewwi war nañ ko mën a investir. non xam nga tey avant ñu koy investir nan bàyyi ba lijjit ni mokkee ba pare xam nga tey mënoo ñëw ñoom ñaar ñu am benn affaire seen biir parti il faut que ñu lijjit ko au sein de leur parti ça c'est interne. suñ ko lijjantee ba pare bu dee keneen jóge na euh, Pastef wala keneen jóge PRP su boobaa parti bi mën nañu ah kii la ñuy investir mais léegi ça n'a rien à ni doxee léegi ñoom seen seen c'est au sein de leur de leur mouvement ñoom a lijjantee ba pare. mais pour naa Déthié Fall mënoon naa xam nga euh, nit ku nekk ak na ngay doxee Déthié c'est quelqu'un qui vise loin ak loo ko mënti waxal c'est ay nekk maire ça importe peu. xam lan moo baax une équipe si tu as le plus grand coach du monde alors que amul équipe baax dox dëcc mi ngi ci leneen mais mairie Dakar da muy xëccoo ay xëccoo lan dëcc dafa yooyu ay xëccoo. léegi mais élection locale yi euh, euh, gis ne enjeu yi bëri na fenn nekk kenn ku nekk dafa mel ni élection locale yi dafa intéressé sénégalais yi ak acteurs politiques yi lan nga jàpp ne moo ko waral. mais c'est normal élection gox goxaat la bi mooy premier tour présidentiel surtout cette année en 2020 en 2022 c'est-à-dire bi nga gisee li nga gisee jeunesse bi jóg mos fee am bu njëkk man sama genre dañuy ñëw rek voté en plus xamun woon sax lan mooy élection locale lan mooy principe vote lan mooy concept bi mais ren enjeu bi mooy bii mooy premier tour présidentiel mag kii wax na ko Mahmoud Salah c'est une voix utilisée nee na élection yi mooy définir ndax Macky Sall dana nekk candidat waaw wala déet loolu koy jeexal ça veut dire que Ablaye la perte élection yi Macky Sall leer na ko ne bu perte élection yi moom ndax dëgg yàlla élection législative sax est-ce sax opposition bi daa majorité assemblée. il ne va plus gouverner moo xam na ko. waaw mais dañoo gis ne euh, euh, benn Bokk Yaakaar ak kàngam yi fi nekk. yan kàngam euh, ak ak doole bi ñu am. ban doole ba pare yor nañu xaalis aussi pour mën a pour mën a def campagne. pour mën bu doon xaalis Abdoulaye Wade wàcc. xam nga nee naa Sénégal yi muy doxee deux mille mille neuf cent soixante ba léegi xam lu changé technologie moo avancé bu doon xaalis Abdou Diouf du wàcc bu doon xaalis Abdoulaye du wàcc. mais xam nga nit ñi léegi dañoo jàng xam boo la joxee xaalis dañuy lekk bu ñu demee si urne bi voté ka leen neex loolu kese la mais du question xaalis ak ban doole ngay wax doole xanaa doole justice la am nga xam ne mais kàngam yi nekk benn bokk yaakaar dafa nekk yow la la la lan nga tuddee kàngam yow ne mooy ñi nga xamante ni tey ay homme politique lañ am nañu xam-xam fii ñëpp am xam-xam waaw am nañu xam-xam tey tey candidature Abdoulaye Diouf Sarr ci ville de Dakar buñ ko cambee kan moo ko mën a kii kan moo ko mën a contesté ak est-ce que am ngeen candidat bu mën a jàmmarloog Abdoulaye Diouf Sarr ci Dakar xam-xam bi ngay wax ah. xam-xam bi ngay ñëpp am xam-xam mais dañoo ëppante dañoo ëppante. waaw ak ku ne sa xam-xam ci fan nga ko jëm. fan nga ko jëmale. tey benn boo yaakaar munoo ne am na ñu xam am na ñu am na ñu koy wax sax c'est des c'est des têtes entre entre guillemets ba ëpp borom xam yi nekk ci coalition coalition Yewwi Askan Wi man mi nga xam ne maa gën a tuuti nekk ci au baa de l'échelle à bas de l'échelle man sax am na ñi nga xam ñi ngi ci benn boo yaakaar <laughs> ëpp bu dee niveau ëppuñ ma ko bu dee diplôme ëppuñ ma ko peut-être politique a tax ñu àgg fenn fii mais bu doon seen seen dooleel ak seen expérience poste yi ñu am duñ ko am jërëjëf euh, Omar jum euh, yow nga bokk ci coalition Yewwi Askan Wi bokk ci parti bi di PRP euh, yow la ñu invité yow yaa fa yor lépp lu jëm ci wàllum formation PRP ñu jeexale ci élection locale yi fi nga xam ne mooy commune commune Daara yow lan moo tax nekkoo fa candidat part que xam nga dama jàpp lu jot rek yomb xam nga boo nekkee ndaw. wala da nga faa desee fës. non du question desee fës. boo boo nekkee ndaw <laughs> man j'ai l'avenir devant moi da ngay jàngat te ci lii ñuy di jàngat rek da ngay jóge point A dem point B dem point C ba baa ngay àgg point Z mais boo jógee point A bëgg dem point Z non seulement doo àgg te li nga bëgg doo ko am mais da ngay observer di suivre dem ba nga xam ne boo demee ba ne acca bëgg naa rek ñëpp na acca mais tey mënoo jóg-jóg rek su suy sort de part ñëw na acca bëgg naa mais lii nga fi wax nii est-ce que du manque de courage. non du question manque de courage am courage moo tax ma occupé li ma occupé tey am courage moo tax ma nekk ndaw nekk daara jolof benn parti wala benn mouvement bi nga xam ne amoo dara looy def ci opposition bi te doo ma aviser. wala wala xam ne boo fa demee mën nga am défaite boo xam ne. non du question man kese may dem tey. mënoon boo fa demee mais boo nekkoon tête de liste. non mënoon mënoon naa ñëw mais xam nga ban naan les candidats à la candidature man déposé dëkk j'ai rempli les critères. mais damaa xam ne on a un profil te man man tooguma daara te ñun dañoo bëgg maire bi nga xam ne da ngay toog daara man si suis basé à Dakar daara dem xool samay mbokk yi am di jàmm bu dee wàllu parti bi ma dem liggéeyal parti bi parce que man basé wu basé wu ma daara. kan mooy seen candidat au niveau du département. Euh, au niveau du département El Malick qui est le chargé de communication de Pastef je pense waaw moom la El Malick Ndiaye moom mooy liste moo ji moo dirigé. liste fan la dëkk foofu. mu ngi daara jula mais est-ce que si département boobu tamit est-ce que newu leen fa doole par rapport euh, euh, par rapport euh, ministre Aly Ngouille Ndiaye. non xaaral ma expliqué la rek. xam naa fa nga jëm xam nga doole yow. doole nee naa la si élection yi lay feeñee xam pour lan képp ko falu population bee la fal moo tax élection bi rek ngay mën a définir ndax. PRP am na doole wala coalition yi que am na doole wala benn benn boo ko yaakaar am na doole ci élection yi rek nga koy xamee. léegi. waaw xam nga lu tax ma bëgg la expliquer sànq nee naa la euh, doole nga ne ma expliquer lan mooy doole mais xam nga tey par exemple boo gisee ma ne la euh, commune département Linguère mooy tey Aly Ngouille Ndiaye dafa am loo xam ne daf koo ŋàbb ci loxoom. Mhm. mooy mairie bi. mairie Linguère. maire maire bu mairie bu Linguère. Mhm. beneen bi Aly Ngouille Ndiaye nekkoon na ministre ministre yor ministère bu am doole amoon na possibilité ay réalisation amoon na possibilité jël doomu daara wala doomu Linguère sampu nangam ak nangam ci wàllum politique. Mhm. beneen bi Samba Ndiobène ka ma nga fa am na lu mu téye. ci ci ministère la téye. xaaral rek ci ministère mhm. ci ministère la téye. beneen bi Ali moom tamit am lu mu téye. mi ngi téye ci Ali Saleh Diop. ci ministère la téye. am na ay député yu bokk ci benn bokk yaakaar yu fa nekk. te yéen. amu leen benn ba tànk. Euh, ñuy ñuy dog di ñuy presque ñuy dog di dugg ci wàllum politique ay Malick Malick Ndiaye moom nga may tuddal xam naa. Euh, El Hadj Malick Ndiaye bu Pastef day dog dugg ci Pastef ndax Pastef si boppam mooy yàggut. Mm-hmm. Ah, ah. ah yàgg na de. non yàgg li tax ñuy wax yàgg yàgg yàgg bu ñuy wax. Mm-hmm. Pastef kay dafa jékki jekk rek firee ko mais expérience bi yàgg bi mu war a yàgg amu ko. déedéet quand quand vous me parlez d' expérience tey dañuy jël kaw APR kañ la génn ci gouvernement bi 2009. deux mille deux mille deux mille euh, deux mille douze mu jël mu jël kii bi te ba muy jël réew mi am na zone yi nga xam ne sax le parti n'était pas représenté là kon bul ma wax affaire expérience bu dee ñàkk expérience moom gouvernement Macky Sall ñoo gën a ñàkk expérience. voilà kon posé da nga laaj da nga may bàyyi ma tontu man kay da nga may ma tontu. yaa wax yaa posé beneen bi ci topp mooy soo naan ndomboy tànk gis nga ndomboy tànk xam nga lan ko ëpp ëpp solo expérience bien vrai que ñun a deux ministres trois députés. am na ñi nga xam ne tey par exemple le, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi lam fa def ñii defuñ ko fa xam nga lu ñu fa nekkee nga bëgg takk jaru ñu takkal la nga bëgg ngént ñu ngénteel la ngay xew ñu jënd saako soble saako ceeb di la jox mais amul lenn li xam ne mën nga ko faa teg ñu ne lii ñoom ñoo ko fi construire wala ñoom ñoo ko fi def amul kon tey bul ma waxee expérience bul ma waxee ndomboy tànk nee naa la ñun su ñaari ministre ak ñetti député yi wax dëgg yàlla ñun gisuñ seen njëriñ foofa c'est normal ça parce que kenn ko dëkk fa keneen ki moom le ministre de l' élevage. affaire boddi bi ngay def moom lu mu. mais du boddi xam nga man li may man ñun ñëpp ñoo bokk Jolof ay mbokk lan mais dëkku fa man je n'ai rien contre gis nga bu dëkkoon daara dama lay dama koy tàccu mais dëkku fa. mais lan moo tax nga bëgg wax ne ñooñu amuñu expérience. non ay magu jëmm ñu def leen ay ministre nga ne amuñu expérience non mais fii ñaata ministre ñoo fi nekk te bu li tax ñu bu njëkk li tax ñu naan ministre ministre mais fii ministre yaa ma neex moo fi am rek léegi. moo tax man la expérience bi des na. d'accord jërëjëf euh, Omar jum euh, yow yaa nekk ci parti bi di PRP bu euh, Déthié Fall léegi ñu wax tuuti ci li nga xamante ni moom mooy assemblée national ak député yi nga xam ne ñoo ngi leen fay tudd jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique ñu bokk ci benn bokk yaakaar yow lan mooy ci sa xalaat. xam nga assemblée dinaan député léegi amatul parce que boo demee ba assemblée nga dégg benn député na man député diw kon yow fàtte nga la fa yóbbu. man dama jàpp ne député man dafa waroon am ay critères lu mu gàtt gàtt nga am benn njàng mi mais da nga gis assemblée ñi nga xam ne tàccu ak yëkkati vote lañ fa am beneen bi ci topp mooy ci nguuram Macky Sall lañ gis luñ mus a gis te en plus député yi lan yab rek de pour dañoo war a topp benn ligne la député yooyu kan moo leen jox passeport bi dossier yi ñu fournir kan moo leen ko jox te en plus benn député nga gis muy am ñaar ñett ñeent ba juróom-ñett jabar nga am certificat mariage. te nga nekk jullit ñan ñoo leen ko ñan ñoo leen ko attribué liñ la te boo ko toppee day dem ba ministère des affaires étrangères day dem ba ba présidence kon ñoom peut-être ñoom ñoo fees nekk député am yenn privilège mais ak loo ko mënti dégg bu dee dëgg da nga bëgg a dégg député assemblée yi nii yi Macky Sall choisir moom wax dëgg yàlla mooy assemblée bi gën a yiis ci ñi nga xam ne ñun yéen fekkee wut ñi nga xam ne xale lan ak ñi nga xam ne moom lañ tolloog jamono li am def liggéeyam ci mbir mi. c'est que nag xam nga kundóo bi récemment boo seen lu ñu daw. parce que bu ñu jëlee kaaw xalifa Sall bi ñuy dindi malaanu kiiraayam dafa gaaw. Sonko idem mais ñoom seen boss dañoo jël seen temps mais par aw par bee danañ ko def xam lu tax parce que gars ñu ngi sippi xippi li flagrant la ñoom ñoo ko def ñëpp xam nañ ñoo ko def kay. dindi malaanu kiiraayam danañ ko def kay xanaa kay lenn dem ba justice ñu ne non leen ni da nga leen i da nga leen da nga leen tëj nga tëj leen génne leen gracier la ñu dem peut-être loolu la nañ ko te bu amee tamit du ñu bett. Hmm. waaw bu tamit du ñu bett dëgg yàlla. d'accord euh, léegi ñu wax ci euh, arrière tuuti ci li nga xamante ni tey mooy troisième mandat bi nga fi tudd sànq président Macky Sall. moo ko de kii moo ko tudd Mamou Sallah. d'accord mais yow est-ce que jàpp nga ne président Macky Sall ci doxalinam am nga benn lecture boo def ne. dafay def troisième mandat wala danga am lecture boo xam ne ci li muy doxee du def troisième mandat. question fermée la oui ou non. waaw question fermée la wii danga jàpp ne def troisième mandat. waaw léegi fan nga ko teg loo koy justifié. ni ma ko justifié kay mooy maanaam dès le début ku ne <coughs> amoo amoo droit def troisième mandat mu la gaay ñaareel ba moom moo wax ne fal nañ ma 2012 ba 2019 muy sama premier mandat bii bu ko soobee yàlla. ak bëgg-bëgg sénégalais ñu ma fale muy sama deuxième mandat ma jeexal ci moo ko wax Babacar Fall posé ko bof pas Babacar Fall yaa quelqu'un Babacar Fall mu ne ko du ma ne oui du ma ne non Mamour Salah moo taxaw fii ma nu ko sa moom la Mamour Mamour Salah yii moo ñuy permettre ñu xam ne Macky Sall dana présenté wala du présenté waat mm-hmm. beneen bi ci topp mooy ñi ko jege mooy les voix autorisées ya ñoom Abdoul Mbow ak ainsi de ci laaj xam lu lay wax jotagul léegi nag loo ko mën a tuddee bu doon ne daanaan déedéet nga ne waaw mais nag Sénégal man leen dafa jaaxal dañu fay ñaar justice ak diine xam pour lan tey boo nee faculté de droit benn professeur ngay am mu jàngal 1000 élèves tey bu ñëwee ci constitution bi kii wax lii kii wax lii kii wax lii kii wax lee di jéem a di ñuy jéem a réeral. bokk ko jàngal. mais justice bi wane loi loi la loi Sénégal moom article li mu wax benn article virgule bi virgule bi la mais da nga gis kii waxee ko nii. Euh, Ismaïla Madior Fall ban ko waxee lu mu wax en principe mooy lan au lieu mu tontu de en principe la wax nga ñëw ci su ma ne ci côté diine bi sax loolu beneen à mais pour wax la ne carrément que nit ñi tey ci même ci éducation nationale man dama jàppoon ne waroon nañ ci boole suñu constitution instruction civique pour même xale bi nekk c sax mu war a xam instruction yi instru euh, instruction civique lii mooy constitution bi lii la wax comme ni ñu koy jàngale comme ni naan euh, la séparation des pouvoirs pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir pouvoir judiciaire war nañoo dugal ci biir constitution bi ñoo xam ne article bii lii la wax mais article bii lii la wax mais nag benn groupe bu restreint ñoo xam loolu am na ñi xam ne ñi ngi ci fii jàng xam amul article bi xamul lu mu wax article bi xamul lu mu wax te loolu tamit damaa jàpp ne ay ndëgg sërëx lu ñu tëdd rek ci biir la. mais bu président taxawoon ne day def troisième mandat lan mooy nekk seen taxawaay. bañ ko ni ko bañee rek. mais yéen euh, bañ ko yàgg ngeen ko wax mais du mujj fenn <laughs> dañ yéen dañ leen a kii président leen a ñeme. dañu ba pare yéen opposition bi. <laughs> ñemewuñu de. mais bu leen ñemewutoon li fi jaar lépp dina fi jaar. bu bu ñu ñemewoon trop euh, keroog ba mu ba bëggee ba mu bëggee faagagal Sonko moom. loolu boobu beneen kaaw askan bi la beneen kaa la bu leen wax yéen opposition ndax loolu yoonu opposition bi nekku mais bii combat bi du combat bu opposition bi kese combat Sénégal gépp la. mais yéen yéen même moo tax ma ne la yéen ñi politique ni dem ngeen ba nga xam ne. non dama ne la xam nga da nga wax man wax la nga ne lee combat askan bi la man ne la bii tamit combat askan bi la parce que président na wax dëgg moomu Sénégalais ba nu ñëw ne day day présenté pour lan. Ah, léegi yéen Omar yow yéen ñi nga xam ne yéen bokk ci opposition bi. Ah. man damaa gis ne président Macky Sall faalewu leen gis naa ne daleen na yàpp gis naa ne lu mu bëgg a def mënu leen ko tere. par exemple mu def ko exemple parrainage jaar na fi. Ah. leneen leen jaar na Euh, yéen man ngeen a contester mën ngeen a wax du fi amee du fi amee mais bu ko bëggee def mënu leen ko ko tere def bu ngeen ci génnee ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi seen yoon nekkul ci politique mais yéen ñi nga xam ne yéenay def politique mënu leen a imposer président Macky Sall dara ndax rapport de force bi moo des. xam nga tey dama lay jox exemple Firawna gu fi judd ma ma ma ma sa bakkan Moussa ci palais bi la juddoo Macky Sall xam nga la moo ko sànq suffrage direct bi élection locale yi moo ko njëkk a wàcce xanaa nag nee naa la bu demee ba amul maire yi nga xam ne ñoo ko war a teewal ci gox Euh, élection législative di ñëw amul amul majorité su boobaa jëruñu présenté wu moo tax man la du du c'est-à-dire que ni ak guñ ci niveau boobu pour ay day nekk candidat ak du ne candidat tey président ma Sall même bu bu bu nekkoon ci xelam sax nan la koy waxee Sénégalais problème la ci moom nan lay waxee damay présenté waat xanaa du ñu wax ne non damay bàyyi damay bàyyi conseil constitutionnel mu joxe avis comme ni mu ko defee woon. waaw mais noonu la war a def. ma ne lu tax mu joxe avis. nul ne peut faire deux la bu dee war ñu wax ci nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs jeex na. d'accord mais xam nga yéen euh, yéen euh, dafa mel ni benn moment boo xam ne sax yéen wegu leen conseil constitutionnel. wek mooy. mooy jox gëdd jox cër. Ah, xamul tax moo njëkk a moo njëkk moo njëkk a ñàkk jox cër boppam la wax dëgg yàlla. waaw non même président Macky Sall. Ah? Euh, même bu joxul boppam cër. waxam tamit man gis naa ne wax bu oyof la yor kàddum dafa oyof. Mm-hmm. comme ni ma koy faral kàddu Macky jërul dóor sa doom mais dama ne yéen. moo gën a moo gën a xam nga xobu garab. waaw non d' accord naa kàddu dafa oyof mais yéen opposition bi lan moo tax en tant que ay républicain ngeen man warul warul ndax lan moo tax président président Macky Sall même bu taxawee na day nekk candidat lan moo tax yéen mënu leen a wóolu conseil constitutionnel bañ def fa ñëpp def fa seen dépo dépôt conseil xam ne Omar yu mii war naa mën a jum euh, mii war naa mën a bokk ci élection yi Macky Sall mii waru cee bokk Ousmane Sonko war na cee bokk wala waru cee bokk lan moo tax mënu leen a bàyyi ba décision finale bi. Euh, cour boobu dañoo amul ñu mel ne jamono ñu mel ne juge Kéba Mbaye. kon man personne. Hmm. wóolu ma leen. conseil constitutionnel. man wóolu ma leen man man li may wax man la engagé. Hmm. parce que ku mel ne juge Kéba Mbaye bi mu daan tenir. tey ñu jël ñu boo ko bëggee comparer ak li xew léegi nga jël Macky mu jël cinq personnes te sept yi sax bu yàggu la la dool deux mu jël sept personnes ñu ñu tuddee les sages sept sages sept sages yooyu ci ndigal Macky Sall la ñu doxe élection présidentielle bu Abdoulaye Dione génnoon na 50 pour cent la ñu am même bu dee sax dafa tombe conseil constitutionnel jox Macky Sall 50 pour cent. Hmm. am na yi nga xam ne boo ko gisee c'est des faits yi nga xam ne da nga koy gis sa xel ñaaw ci. kon yow da nga jàpp ne justice su réew mi. de manière générale non dama lay laaj. Ah. dama laaj lay laaj ndax da jàpp ne kon. ndax yow euh, li nga wax ci conseil constitutionnel su ma la déggee mooy euh, président moo leen di sant. Ah, bien sûr. waaw d'accord léegi da nga ko weddi yow. non euh, weddiwuma wala di ko dëggal ak yooyu. yow loo jàpp yow. no man mënum du ma wax li ma jàpp mais yow laa wax <laughs> dama ne. même tey justice su réew mi kon est-ce que du président Macky Sall daf daf ko daf ko téye ak loxoom ndax gis nañ ne euh, su ma nee sant waa conseil constitutionnel ñuy def war naa mën a sant ministre euh, maître Malick Sall muy def. ah mais c'est une justice à double vitesse donc kay ñëpp xam nañ ko. xam nañ ne justice bi tey euh, bu dee le procureur de la république qui est le maître des poursuites ndaw maître Malick Sall la Malick Sall ndawal ndawal ndawal Macky Sall la. c'est chien rek. directive yi ci Macky Sall la jógee aw si ministre de la justice ministre de la justice wàcc ci procureur. Hmm. procureur tamit moom daf daf li war a def rek. d' jërëjëf euh, Omar euh, Dioum yow yaa nekk secrétaire national chargé de la formation du PRP euh, nekk expert communication léegi fi ñuy jeexale mooy seen PRP ndax léegi waxtu wi jeex ay cinq minutes PRP moom ndax parti la boo xam ne nag du fi nekk ay parti télécentre ak. ay parti yóbbaale ma mooy gungeeg parti yoo xam ne duñu mos a dem ay élection dama la laaj kese de Omar ndax du ngeen parti boo xam ne mooy parti yóbbaale ma di langaameetu ak parti yi nga xam ne duñu mos a dem élection ndax du ngeen bokk leen ci parti yooyu. xam nga déjà euh, benn parti du dem élection coalition la ñuy demee benn ñaareel ba PRP bi nga xam ne président Déthié moo ne ci kanam nekkul ku ñàkk fayda nekkul ku yaafus nekkul ku ñu naan fii ngay jaar wala fii ngay jaar bu doon loolu mu ànd ak Idriss Seck dem ci Macky Sall fi may terminer mooy. bépp opposition bu ma a am Sénégal mu bokk ci soit bu jiitewul day bokk ci ña koy jiite que ça soit muy front de l'opposition bu demoon ci dialogue bi que ça muy actuellement coalition Yewwi Askan moom c'est le président mooy président comité électoral bi récemment moom moo yóbbu costion bi sa à dire que kàddoom dafa am lu muy peser ci coalition Yewwi Askan Wi te les gens le savent ñi ñi nga xam ne moom ñooy ay nawleem que ça soit Sonko Khalifa ñoom ñëpp xam na ne du nit ki nga xam ne dañ koy diri moom bu ñëwee. lim sentir lay wax te la muy wax day am poids te la muy wax danañ ko sóoraale ba ñu boole ko ci li nga xam ne moom mooy doxal coalition bi loolu moom dama la koy rassuré dama lay rassuré ci côté boobu. ndax jàpp nga ne bu présidentielle ñëwoon da ciy bokk. Ah, bien sûr lu tax da bokk. en tant que candidat. mais may yow ndax yow. non dama la nekk ab organisateur rek dans les coalitions. pourquoi pas mu jiite coalition Yewwi Askan Wi nekk la président. xalaat ngeen ko. ñuy xalaat ak ñàkk xalaat. waaye yow it nag yow nag wax dëgg. non parti bu ndaw ngeen non attends déedéet bu ñu nee parti bu ndaw looy tuddee parti bu ndaw bu doon parti bu ndaw Macky Sall nee du falu. te en plus Déthié Fall li mu am ci en moins de huit mois ci parti bi laa wax de Macky Sall créé na parti 2009 ba 2012 amu ko. lan si li nga am. mais su dee ci code de popularité ñiy ñëw chaque jour y a des adhérents te tey kii ñëw di adhéré da ngay jàpp ne kàngam la ki adhéré war nga jàpp ne kii war na nekk ci bureau bi. est-ce que jëlu leen ñu frustré ci réew mi rek. non bu ne frustré. bul na bul na frustré de. non laaj rek. non lu tax li non du jël xam wowul kenn. non dama la dama ne. est-ce que du ñi frustré ci réew mi ñoo ñëw ci PRP. Euh, non peut-être du question de frustré dañoo gis ne moom euh, vision ak doxalinam méngoo na ak ñoom dañuy doxe ñu fekk encore une fois moom wowul kenn moom dafa toog bien vrai que il est open nit ci moom gis na ni muy doxee tamit c'est un homme constant gars yi ànd moom ci projet muy man ak muy keneen ak keneen dañ ko gëm te dañoo gëm ne moom war na mën a yor réew mi. mais est yemu leen Dakar ak Daara Jolof rek. nee naa la. PRP c'est un parti bien représenté ci 46 départements yi fépp foo dem PRP am na fa muy diaspora beeg fépp PRP am na fa amul ci coalition yi askan wi amul ku fi taxaw li nga xam sa parti am na ko te PRP amu ko leen de mën na am comme li nga wax peut-être si wala mais bu dee un parti légalement constitué li ñuy wax parti légalement constitué PRP am na ko bu dee ay nit. li ñuy soxla PRP am na ko bu dee ay kàngam ay tet PRP na ko bien sûr d'accord mais est-ce que tey am na ay communes ci local yu ñu dëgmal ay communes yoo xam ne instant bii nii euh, PRP am na fay candidat am na fa bien sûr en pagaille tey mën naa la si euh, docteur Mbodj qui est le de com fan la nekk ngi euh, commune am ba. non seen commune yaa docteur Sène yaa naa am pagaille yaa naa une trentaine de personnes voire même plus yi nga xam ne ay. mais c'est des candidats retenus waxuma la candidature rek. candidat yi retenu ñi nga xam ne ñoom san compter nag ñi nga xam ne ñi ngi xaar pour ñu décider ba xam ne ci coalition yooyu moom nekku leen ci ay toppeekat c'est que c'est que la ma laaj non am na loo xam ne jërut laaj man damay laaj yow yow yaa ne xam nga Déthié Fall waaw xam nga ne Déthié Fall du si borukat bu doon si borukat kay Idrissa Seck ba mu demee ànd ak Macky Sall mu nekk numéro 2 day dem ànd ak moom am la ko neex mais teewul ba mu demee assemblée daa wax la may wax il est constant kon boo ñëwee fi nag est-ce ma moo da ngay bëgg a damay laaj loolu du du question lu moom non loolu loolu la rek mais du question. <laughs> d' accord jërëjëf euh, Omar euh, Dioum mhm. euh, kon daal yéen. fii la ñuy tàggoo kon daal jàpp ngeen ne yéen yeewu askan wi incha allah élection locale yi di ngeen gagné largement. ci ci grande ville largement di xaar nag élection législative ñu doggale ko nag léegi nag boobaa li Mamou Sall wax par exemple Macky Sall jarul sax muy muy muy bokk à 2024. mais yéen est-ce que nag du ngeen ay mber ngemb rek. li mer lan mooy mber ngemb frustré rek gedd. loolu si loolu mere Macky rek. loolu ci benn boo ko yaakaar la am ñoom ñoom ñun c'est-à-dire que ñun dañoo am cër. Mhm. dañoo dañoo dañoo am cër actuellement bu ñu jox gaa yi. jërëjëf euh, Omar ñoo ngi lay sant di la gërëm. ok jërëjëf maa ngi lay remercier. <laughs> jërëjëf euh, Omar Dioum mbokk yi moom mu bokk ci PRP bu Déthié Fall moom mooy secrétaire national chargé de la formation li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15h 16h Mamadou Diaw Dial moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.